الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقه التيسيرا ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر خامسها العادة قل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen dalal ci suñu jataay bi nga xam ne ñoo koy bokk di ci waxtaan ci wàllu règle yi nga xam ne mooy règle fiq yi ñu jëloon ci suñu jataay bi weesu règle bu njëkk bi nga xamante ni moom mooy al umur bi maqasidiha mooy ne jëf yi nga xam ne nit ñi dañ koy def liñ ciy xool mooy yéene yi tax ñu koy def mooy relation bi nga xam ne ak rapport bi nga xam ne am na diggante jëf ak yéene loolu nag li ci cosaan mooy wax bi yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon te ñu leeroon ko ci jataay bi njëkk bi mu waxoon ne innama al amalu bin niyaat wa innama li kulli imri ma nawa jëf yëpp dafay tegu ci kaw seeni yéene muy baaxuk jëf wala bonuk jëf day dellu ci baaxuk yéene wala bonuk yéene kon li ñuy xool mooy sixatul sixatul amal bi sixati niyaat mooy al amalu mutabara bi niyaatiha moo ne jëf yi seen yéene lañ aju bu yéene yi baaxee jëf yi baax bu yéene yi bonee jëf yi bon waaye nit ku nekk li nga yéene loolu ngay am ci sa jëf mooy li nga yéene yool ba ngay am ci sa jëf ndax nit mën naa yéene dara te du ko am ci wàllu réalisation wu jëf bi mën na bañ a réaliser wu buñ nekkoon ni ku nekk li nga yéene loolu ngay am tekkiwu ne résultat bi ci li ngay am nii ci wàllu àdduna waaye liñ ci nama mooy yool bi maa ne kon innama li kulli imri'in ma nawa liñ ci nama mooy jëmmi yool bi ci boppam waaye yool bi waaye tamit léeg-léeg àtte bi ndax même ci wàllu fiq nga xam ne yool bi nekkul ci sama loxo man en tant que man faqih bi nga xam ne may àtte sa jëf léeg-léeg tamit ci yéene bi laay sukkandiku pour mën a àtte sa jëf pour xam jëf bi lan la muy buñ koy xool ci côté wu feeñ loolu tamit dinañ ci ñëw incha allahu taala waaye tey dafa am benn mbir boo xam ne dañu ciy taxaw mu interpellé ñu comme ci fiq lañuy ñuy waxtaan li ñu waroon def mooy continuer règle bi nga xam ne moom lañ jëloon euh, jàngat yi nga xam ne moo ci waroon topp ci al umur bi maqaasidiha liñ ci jëloon keroog ci al ibra fi l uqud bil maani la bil mabani mooy ne jëflante yi liñ ciy gën a xool mooy sens bi ak jubluwaay yi ci nit ñi am donte sax léeg-léeg kàddu yi mën na bañ a xëy na jëm ci loolu ci taaw ci cosaan mais li ñuy xool mooy kàddu yi ñuy jëfandikoo duñ ci focaliser wu trop mais li ñuy xool mooy kàddu yi ñuy jëfandikoo lan lañ ci jublu ndax léeg-léeg da ngay gis benn jëflante dem ci ñaari dëkk mu bokk mu utee niñ koy tuddee tur yi ñu koy tuddee différence boobu ci tur bi duñ ko xool trop li ñuy xool mooy ñoom ñëpp ndax benn mbir bi lañ jublu wala déet ci loolu la teg jëflante nit ñi mooy ci li nga xam ne nit ñi xam nañ ko loolu dina ñëw incha allahu taala ñu gën ko leeral ci beneen règle boo xam moom la ñu tuddee al aada muhakkama incha allahu taala léegi tey li nga xam ne moom lañuy waxtaanee dafa am benn euh, affaire phénomène bu feeñ ci jamono boo xam ne wàllu investissement la mbokk yu bëri di ñu ko faral di laaj di ci interpeller ci ne dafa am ñu fi ñëw di wax nit ñi bu ñu amee xaalis boo xam ne yor nañ ko bu ñu ko jëlee investir ko euh, ñu jël ko jënd leen ci ay pétrole lañ wax man pétrole laay faral di dégg la moo pétrole lu bëri mooy ñëwaat bu ñu leen ko investiralee léegi bu ko defee ñuy gagné benn montant wala benn taux boo xam leen koy versé. wala dañu leen koy defal ci seen conte léegi bu ko defee ñoom saa bu ñu ko bëggee jël ñu jël ko wala ñu leen koy verser chaque fin du mois. loolu nekk loo xam ne am na ñenn ñu nekk Europe ñu ngi ci interpellé woon woo ñu si duñ ci laaj am ñoo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi di ko laajte mu nekk biir boo xam ne jar na jàngataat ci jullit bi nga xam ni euh, dafa tënku ci diineem diineem yar ko am nu mu ko jàngalee mu fàggoo ko alal. suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon ñu ne yaa ayuha alladina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum bu leen di lekk seeni alal ci seen biir ci loo xamante ni neen la léegi loolu dafay waral ci jullit kon mu fexe ba saa buy lekk alal mu bañ a tegu ci kaw loo xam ne baatil la baatil mooy loo xam ne amul àq teguwul ci kaw dëgg tegul ci kaw yelleef bu ko nit ki yelloo dañuy bëgg alal bu ko nit ki di jël bu koy fàggu mu fàggoo ko ci anam boo xam ne am na yelloo bu mu ko yelloo loolu moo tax lislaam yoonal li nga xamante ni bi mooy échange bi am wa xalallahu al bay'a wa xarama riba yàlla subhanahu wa taala ci aaya ba ne dafa daganal li nga xam ne mooy jaay ak njënd bu ñu waxee al bay' liñ ci namm rek mooy mubadalatu maal bi maalin ala sabili tamlik wa tamalluk mooy échange buy am ci loo xamante ne ay bien la ndax al mooy kullu aynin laha manfaa min gayri xaaja mooy bépp mbir boo xam ne mën nañ koo jëfandikoo te jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo du ngant moo tax ndax léeg-léeg ñu permettre la dara ne la mën nga ko jëfandikoo parce que ngànt moo ko waral loolu boobu waa kenn du ko tuddee lu alal lu mel ne ki dem ci àll bi gis fa medd xiif ba sonn ba nga xamante ni mënta mënta ñàkk lekk medd bi jamono bu ko jëlee di ko lekk mënu koo jël considéré ko bien boo xam ne moo ko moom bu ko neexoon jël ko jaay ko dañ koy wax ne ko li aajo moo tax ñu permettre la ko wala ki jël xaj akaramakumullah di ko garder ab toolam wala këram nga xamante ni aajo rek moo tax ñu permettre ko ko wa illaa ci cosaan warul woon jël xaj boobu di ko adopté ci ci ci këram bu la ko aajo boobu permettre ci loolu rek nga war a yem mais waroo ko jëlaat soppi ko def ko bien jël ko di ko jaay kon moo tax ñu ne euh, al aynul mun al muntafa biha min gayri xaaja léegi bu fekkee ne mubadalatu maal bi maal ala sabi tamallukan wa tamlikan wala ala sabili tamalluki wa tamlik mooy échange bi day am ci ne ki joxe day joxe joxe am yaa moom léegi ma jël jëlu maa moom léegi kenn ku nekk li nga jël léegi yaa ko moom loolu échange la boo xamante ni bii l'islam daf ko yoonal mu nekk ne léeg-léeg xaalis ak xaalis lay doon léeg-léeg xaalis ak bien lay doon léeg-léeg bien ak bien lay doon voilà léegi loolu moom mooy xeetu njaay yi nga xamante ne l'islam daganal na ko bu bu ko daganalee tamit daf ko def ay façon yu bari yoo xamante ni bokkul ndax dafay nekk imma mu nekk murabaha wala mu nekk bayu tawliya wala mu nekk bayu euh, almuawada mooy léeg-léeg nit ki day ñëw ne la lii laa jëndee 1000 francs boo ma ci tegalee 200 ma jaay la 5000 laa jëndee boo ma ci tegalee 500 ma jaay la léegi bu ko defee mu wax la lim jëndee daal di lay wax li nga xam ne mooy ribaxam mooy bénéfice am nga jox ko mu jaay kii ñëw jëndee mille francs gis ne mbir mi mi ngi bëgg a lamb ci loxo mu ne boo ma joxee mille francs ma jaay la kii ñëw jëndee 1000 francs mu gis ne produit bu ko téye mën na yàqu ci loxoom te valeur mi ngi wàññeeku 1000 francs la jëndee woon bu sañoon jaayee deux 1200 wala 1500 mu gis ne marché bi xaw na yëngatu mu ne naa jaayee 800 pour débarrasser wu ci muy brader ko quoi wanteer ko mu dem. loolu yëpp ay xeetu njaay la yoo xam ne mën a nekk la ci lislaam waaye dafa amaat leneen loo xam ne loo ñu tuddee abwaabu sharika muy loo xamante ne bii léeg-léeg ay nit dañuy associé boole seen i bien wala ñu boole bien ak doole wala ak. cër boo xam nit am na ko ci dëkk bi ñu boole ko pour léegi jéem a liggéey yaxanal seen seen am-am bu ñu bokk bu ñu bu ñu amee dara séddoo léeg-léeg nit day am kàttanam am expérience mën a liggéey mais amul fonds amul capital mu dem gis koo xam ne ku yor alal la kooku jël alalam jox ko ko ñu dëppoo ci ay conditions yoo xam ne yu lislaam mën a nangu la mu dem liggéey ci alal ji yaxanal ko bu alal ji màggee léegi ñoom ñaar ñu séddoo loolu la yàlla doon junj ci wa inna kathiran min al xulataa la yabgi baaduhum ala baadin mooy ne léeg-léeg ñi nga xamante ne ñooy associé di bokk yàlla nee na des fois da ngay gis ne ay mbew dafay am seen diggante ak tooñante dafay am seen diggante lu dul ñi nga xamante ne li ñuy def dañ cee dañ ko teg ci kaw ragal yàlla ak ngëm yàlla subhaanahu wa taala léegi loolu noonu lu am cosaan la ci lislaam lu wér la biñ ci jàngat mooy ñu tuddee al mudaaraba ñeen di ko tuddee al qiraat muy investissement bu nit ki di investir joxe alalam fenn pour ñu yaxanaral ko ko loolu am la ci lislaam cosaan depuis ci jamono yu yàgg jamono yonente bi alayhi salatu ba léegi dafa am am na cosaan ci lislaam kon loolu du problème léegi problème bi mooy tey bu fekkee dem nañ ba jamono ay société jóg wala ay xaw ma nu ma koy tuddee jóg ay boîte jóg yoo xam ne dañu ñëw di wax nit ñi ne leen nañ leen jox xaalis na investir benn cent mille francs benn deux cent mille ñu lay verser chaque fin du mois benn montant bu fixe dafa jar xoolaat bu baax ndax euh, li nga xamante ne bi moom mooy investissement ci lislaam li ci njëkk mooy da nekk xaalis bi loo xam ne xaalis la bu ñu mën a jël euh, liggéeyee ko bu fekkee da koy investir nga jox nit koo xam ne koo wóolu la yéen ñaar ngeen dëppoo ci nga jël xaalis bi jox ko boo ko tegee ci loxoom ko yadu amaan lay doon yadu amaan lay doon mooy ne koo xamante ni bi danga nga ko wóolu ba ngeen dëppoo ci loolu boo ko ko joxee da ngay am kóolute ci moom placé ci moom sa confiance boo ko defee bu waxee ne lii la gañe doo ko mën a weddi ci loolu bu waxee ne gañewul doo ko ci mën a weddi bu waxee ne tamit xaalis bi yàqu na te amul benn gàttañ gàttañ lu bu mu gàttañ li mu waroon def def na ko doo ko ci mën a weddi ndax yow yaa jël sa confiance placé ko ci moom ba jox ko pour mu liggéey ji benn beneen bi ci des mooy ne mënoo ko ko jox mu garantir la ne la du perte du dem fayit ne la ala kulli xaal daf lay delloowaat sa xaalis loolu mënul nekk garanti bu mel noonu wérul ndax dañuy wax ne innamal xunmu bil xurm ñenn ñi daan nañu wax naan innamal xaraaju bi damaan xëy na ci li mu jëm ci li mu gën a jëm mooy léeg-léeg xàcc xàcc boo xam ne benn problème moo ko waral inamal xaraaju bi damaan xadis la di xadis Aïcha radiallahu anha lenn ci borom xam-xam yi taxsin ko jàpp ne àgg na ci daraja am nekk xasan euh, lu ci mën a am sens bi li muy tekki mooy par exemple nit ki bu la jaayoon benn rajo nga jël rajo bi ngeen juboo ci critères yeeg ni muy mel yépp ba nga jënd ko nga dem yore rajo bi ñaari fan di ci déglu gis ne am na paan bu ci nekk boo xam ne waxu ko woon am na ayib bu ci nekk ndax loolu looñ tuddee chartul ayib léegi bu ko defee boo gisee ne paan boobu ci nekk moom waroon na la ko wax loolu bu boobaa am nga sañ-sañu waat ko loolu ñu tuddee vice caché lañ koy tuddee am nga droit delloowaat ko li nga xamante ne bi mooy rajo bi mu changer la ko wala mu joxaat la sa xaalis nga xàcc sa dépend ci façon njaay yi léeg-léeg xàcc lay waral boo xam ne sa xaalis ngay récupérer léeg-léeg doo doo sañ dem di ko imposer mu jox la sa xaalis mais li ko imposer mais mu jox la beneen. loolu tamit mooy bay bayu muayyan ak bayu mubaham foofu tamit dafa am différence bu ci am ndax mu muayyan ak mubaham bokkul mooy léeg-léeg da ngay ñëw ci nit ne ko rajo bii laa bëgg ngeen waxaale ci ba juboo ci yéen ñaar mu jaay la ko nga jënd ko ci moom boo demee mu am paan bu ci nekk boo xam ne waxula ko woon nga delloo ko sa euh, rajo bi dafay delloo sa xaalis boo demee nag ne ko dama bëggoon benn rajo marque Sony tel rajo bu def lii bu mel nii bu mel nii mu am ci stock bu mu yor mu jël benn jox la boobu bu amee problème boo ñëwee doone ko jox ma sama xaalis da nga naan ko jox ma beneen rajo la lay jox ndax rajo rek nga ko waxoon jox ko ay melokaan kon rajo moo nekk seen diggante yéen ñaar pas rajo boo xamante ni bii la bu spécifique bii déedéet loolu moom mooy nekk seen différence boobaa ci xàcc bi léegi bu fekkente ni euh, demee na noonu nit ki bu ñëwee ci waa ji di ko jox rajo bi amul droit ne ko ah rajo bi kat jëfandikoo ko ko deux jours li nga ci jot déglu kon da nga ma koy fay dañ naan ko noono innama xaraaju bi daman ndax moom li mu jariñoo ci rajo bi am na ci droit parce que diggante deux jours yi mu ko fi yor bu rajo bi yàqu woon moom mooy perte risque boobu mu jël prise de risque boobu nekkoon ci loxoom ci mu war a mën a perte rajo bi loolu moo tax kon lim ci jot jariñu tamit daf koy mérité kon dañuy wax ne loo xam ne amoo ci prise de risque mënoo ci mënoo ci jariñu loolu la ñuy loolu mooy principe bu l'islam moo tax l'islam araamal riba parce que léegi li xew ci àdduna bi mu usure bi xew ci àdduna bi mooy ci wàllu finance da ngay bëgg yor sa xaalis doo nangoo jël benn risque jël ko placé ko foo xamante ne day am ay garantie ne chaque fois dañ lay jox xaalis dañ lay delloo sa xaalis loolu baaxul loolu exploitation la loolu islam bëggu ko islam dafa bëgg bu fekkee da nga jël investir investissement jàppalante la dimbalante la koo xam ne yorul yor na kàttanam yor doole bëgg a liggéey mënta liggéey nga jël alal ji jox ko mu liggéey yaxanal ci waaye prise de risque bi ci nekk mooy mën na am mu dem fayit mën na am mu perte mën na am mu bañ a gañe dara loolu yëpp mën na ci nekk kon mënoo ñëw exiger ko ne ko ala kulli xaal daf la war a indil bénéfice bu fekkee bénéfice amul doo du du doo ko nangu loolu mënul nekk voilà moo tax innamal xurm bil xurm mooy ne bu fekkee da bëgg a gañe faw tamit nga nangoo jël prise de risque moo nangoo am ay risques yu ci am léegi loolu moom mooy li ci jiitu mooy ne kon bu fekkee da ngay investir ci nit di ko jox loolu mën na cee nekk mooy ngeen perte beneen bi ci des mooy tamit fixer benn montant benn somme boo xam ne danga naan chaque fin du mois wala chaque deux jours wala chaque quinzaine da nga may jox benn dix mille wala quinze mille wala vingt mille loolu tamit wérul ndax bénéfice nekkul ci loxoom moom dafay dem rek di sabablu di liggéey ndax dina am wala du am mënu ko garantiral loolu benn ñaareel bi ci des mooy fixer ko ci benn montant mënul nekk ndax li ñuy bañ mooy loraange bu ci am. loraange mën na am ci ki ba moom alal ji comme mën na am ci ki nga xamante ni moom mooy dem di liggéey parce que boo ko tegee benn montant boobu ne ko chaque fin du mois na la ko jox loolu problème lay doon moo tax li ñu war a wax mooy dañuy séddoo bénéfice dañuy séddoo bénéfice mooy léegi bénéfice bi bu bokkee day nekk ci benn taux proportionnel mooy ne bénéfice bi bu fekkente ni gagné nañ cent mille francs man maay jël cinquante pour cent nga jël cinquante pour cent ngeen séddoo ko mille cinquante mille wala nga jël soixante dix mille. moom mu jël trente mille wa hakada ngeen xool ci li ngeen di seddoo ci li ngeen di dëppoo ngeen seddoo loolu nu bénéfice bi toll rek ku nekk xam kon ban pour pourcentage la ci am loolu mooy li bu ko defee loraange du ci am ndax kenn ku nekk xam na li nga xam ne loolu la am ci ci ci bénéfice bi way laa bu fekkente ni par exemple danga ne ko mu lay jox vingt mille imma mu liggéey kër kër ba sonn du am lu mat vingt mille wala mu liggéey am lu mat deux cent mille jël vingt mille jox la fekk na yow loolu loraange la ci yow li gënoon mooy nga defoon ko benn taux boo xam ni bu jëndee bu amee deux cent mille yaa moom lenn li loolu moo tax kon ñu fixé ko ci taux boobu moom moo gën nekk lu maandu seen diggante ñoom ñaar boo ko defee laa darara wala daraar loraange loraan lorante du ci am léegi nag bu ñu ñëwee ci li ñuy gis tey ci wàllu ñëw ne par exemple investiral benn cent mille francs investiral benn deux cent mille te déjà loolu lu la xaw a tey xel la ndax liñ xamoon ci ñi nga xamante ni bi ñooy yor ay hedge fund nga xamante ni dañuy yor ay capitalu jàmbur ay nit yoo xam ni ay placement la ñuy def ci ñoom yor benn maison boo xam ne yow li ngay def mooy ñi yor alal te seen alal tëdd ci banque yi ñu jël ko jox la ko nga dugal ko ci biir marché yi dugal ko ci biir bourse yi dugal ko ci biir entreprise yi jaxana la leen ko imma nga jënd ay euh, action ci ay entreprise wala nga jël ko dugal ko ci ay produits ay marchandises yoo xamante ni da nga koy euh, jënd fructifier ko bu bu bu bu taux bi yéegee bu fekkee njëg yi yëg na ci marché yi nga jaayaat ko wala nga jël ko def ko ay biens jël biens yi après jaayaat ko lu mel ne koo xam ne dafay dem tabax ay kër après jël kër yi jaay wala yu mel noonu. léegi yooyu chaque fois am na ay risques yu ci am ndax marché yi kenn mënut a xam fan lay dem réellement donte léegi gis nga li ngay gis ci ci ci li ñu tuddee bourse yi daanaka lépp boo ko seetloo c'est virtuel ci ay ordinateur lañ koy def mooy lu ñu tuddee trading haute fréquence nga xam ne léegi daanaka ay algorithme la ñuy développé yu sophistiqué yu gaaw yoo xamante ni ci ay euh, millième de seconde lay def ay transactions yoo xamante ni ay ça se compte par des milliers ou bien des des millions euh, yoo xam da koy exécuter ci ci ci façon bu jéggi dayoo boo xamante ni ñoom seen bopp li ñuy wax mooy fi mu jëm mooy finance su àdduna bi moom moon nar a dof ndax bu dee ordinateur yi lañ jël euh, paramétrer ko programme ko def ci ay nga xam ne daanaka léegi ñoom euh, soxlaatuñ trop ay traders yoo xam ne ñooy toog di jàngat marché bi nu mu demee di dugal ak di génne waaye ordinateurs yi la ñuy préparer ci loolu ci bu defee li jëndal bu defee li jaayal bu defee li jëndal bu defee li jaayal ordinateurs yi yore loolu di ko exécuter loolu fi mu àdduna bi kenn xamul fu mu toll fu fan la yàlla rek moom moo ko xam mais li muy wane rek mooy lépp affaire naxaate la lépp kenn ku nekk jëm a fexe gañe la loolu ci la dem ba wàllu njaay ak jënd jëm ci te lislaam dafa tere woon loolu yonent bi alayhi salaam naha an bay al bépp jaay boo xam ni transparent leerul lislaam daf ko tere dafa waxoon tamit ne ida ida btaata taaman fala tabiahu xata tastawfiyahu boo jëndee dara ba bul ko jëm di ko jaayaat fekk récupéré wuloo ko mu waxoon tamit ne ko laa tabi ma laysa indak wala laa tabi ma la tamlik mu waxoon tamit xakim ibn ne ko bul jaay loo xam ne yoruloo ko léegi yooyu ñetti principe yooyu bu fekkee xool nga ko ci lislaam dangay gis ne lislaam ni mu ni mu tëralee njaay ak jënd dafa nekk ci façon bu leer boo xam ne problème yooyu di am ci ay crash ay crash yoo xam ne dafay am ci ci bourse yi jékki-jékki ay bulle explosé eh, mu mu mu mu mu nga gis kii yi yëpp marché bi daal di jékki-jékki chuter complètement action yi daal di wadd ay milliards et des milliards waxuma ci CFA mais ci dollar dem comme poussière ci noonu ay nit ñoo xam ne ñu ngi doon liggéey ay ñoo xamante ni ay màgget yu yu yu jëloon seen retraite yaakaaroon ni mën nañ koo jël joxe ko ñu yaxanal leen ko ci bourse yi lépp naax saay ñu perte noonu seen àdduna mel ne lu tukki ñenn ñi di dem ba ci di xaru ñeneen ñi di dem ba ci ba ciy dof loolu yëpp lislaam dafa waxoon ne bépp jaay boo xamante ni leerul teguwul ci kaw lu leer ci gis naa lii nga may jaay lii lay lañ waxante man ak yow ba mu leer nga joxe njëg ñu jox la sa alal bul ci dugg lislaam daf ko tere voilà imma mu nekk loo gis wala boo ko gisul aussi mu nekk ne xam nga ko xam melokaan bi nu mu mel ba mu leer nàññ ba nga xam ne sa ñàkk koo gis du nekk luy doon problème ci yow nga soo ko jënd ci kaw loolu beneen bi mooy li nga jënd bul ko jaayaat te récupéré wuloo ko récupération nag bayan dafay nekk man manquul wala mu nekk aqaar mooy li ngay jënd day nekk loo xamante ni lu mobile la wala mu nekk lu immobile imma mu nekk loo xamante ni lu ñuy déplacé la nga jël sa alal ci ki nga xam ne moo la ko jaay soog koo jaay keneen wala bu fekkente ni du loo xamante ni lu ñu mën a déplacé la lu mel ne ay kër ay immeuble ak yu mel noonu wala mu nekk lu lu lu rëy loolu loo xam ne neexut a déplacé ñu xam ne propré euh, propriété bi muy moomeel bi ci boppam jóge na ci ki nga xam ne moo ko jaay bu boobaa liñ ciy xool mooy ñu xam ne propriété bi. moomeel bi jóge na ci ki nga xamante ne bi moo jaay dem ci ki nga xamante ne bi moom moo jënd boobaa loolu lañ ciy xool ba nga xam ni léegi responsabilité am la nga xam ne bu yàqu woon moom la yàqul mooy li ñu doon wax ne innamal ghunm bil ghurm mooy balaa nit ki di ci mën a am bénéfice na ci jël risque li ñu bañ mooy jaay ma benn tonu ceeb ma jënd tonu ceeb bi daal di koy jënde xaw ma tonu ceeb lu muy dar waaye jaay ma tonu ceeb ma jënd tonu ceeb par exemple un million dem wëlbatiku ne Masamba kaay ma jaay la tonu ceeb bi un million deux cent daal di jox kii un million jël fii un million deux cent ceeb bi jaarul sama loxo gisuma ceeb dégguma ceeb day jóge ci ki ma jëndee dem ci ki ma jaay léegi man jëluma ci benn risque ceeb teguwul sama loxo bu ceeb yàqu woon ceeb yàqulul ma bu ceeb tuuru woon ceeb tuurulul ma bu ceeb réeroon ceeb réerul sama ceeb réerul exemple bi nag exemple laa si jub jublu waruma woon sax jël ceeb bala euh, sama kali di ma tooñ xaw ma lu def sama xel bi ceeb mais bon exemple laa si jublu léegi bu fekkente ni léegi noonu la demee lan la ñuy bañ ci loolu mooy yow nga jaaxaan fale comme liy am ci bourse yi dangay ngay ñëw nga ni pétrole ngay jënd pétrole boo xam ne gisuloo ko ça n'existe nulle part par exemple pétrole boo xam ne ko moom ma nga ca désertu àllu Texas bi wala nga ni mi ngi ci golfe bi dégg nga kooku ne produire na ay baril de pétrole am mettre ko ci marché bi yow nga jënd keneen jënd ci yow keneen jënd ci moom keneen jënd ci moom keneen jënd ci moom ñuy jëndalante te kenn ci ñoom du gis pétrole ku ci waxoon ne nañ la livrer pétrole doo ko gis soxlawuloo sax ñu livrer la ko parce que yow ni ngay liggéeyee amul benn disposition boo am pour pare pour di jël pétrole naan da ngay stocké ay pétrole wala da ngay déplacer pétrole di jaay pétrole bi ngay jënd ak pétrole bi ngay jaay yépp ci machine la nekk voilà kon daal li euh, Jacques Attali doon wax. ci pantalon yi nga xamante ni benn tànk bi dafa dagg te juif bi mbo nettali mbokk juifam bi jaayoon ko kenn kooku ñëw ne ko pantalon yi da nga ma jaay tànk yi tànk bi dafa dagg mu ne ko jaayuma la ko pour nga sol ko dama la ko jaay pour nga jaayaat ko mooy du lu am njariñ loo xam ne dañ ko soxla pour jëfandikoo mais c'est juste pour jënd ak jaay jënd ak jaay jënd ak jaay mu wax ko di reetaan mais loolu moom mooy seen philosophie ñoom ci commerce bi mooy c'est pour jënd ak jaay jënd ak jaay jënd ak jaay léegi bu ko defee nga gis ne kon foofu lislaam dafay tere loolu li tax mu tere ko mooy liy indi léeg-léeg crash yooyu ñu doon wax ci marché yi liy indi léeg-léeg explosion bi am ci bulle bi mooy buñ demee ba benn instant kenn ku jënd ne dafa soxla pétrole dafa soxla alalam dafa soxla bien soxlawul xaalis mais ñu fournir ko la soxla léegi da gis ne affaire bi effondrement day am parce que bu laajee ki ko jaay kooku mënu ko jox pétrole kooku bu laajee ki ko jaay mënu ko jox pétrole kooku bu laajee ki ko jaay mënu kenn si ñoom gisul pétrole déggul pétrole lépp ci ay ci ay ci ay machine la nekk ci kayit la nekk léegi bu ko defee loolu yàqute lay jur naxante lay jur boo xamante ne tegawul ci dara loo xam ne base bu leer la bu nit ki méritee gañee dara parce que balaa may mérite di gañee ci pétrole bénéfice damay jënd pétrole ba xam ne am naa pétrole bu pétrole bi yàqu woon wala mu tuur wala dara sikk ci sama pétrole lay ñàkk loolu xëy na industriel yi ñoo koy def waaye dem rek di spéculer noonu loolu lu dul cheral dund ci àdduna bi ñiy jëfandikoo muy ñi nga xam ne ñooy consommateur bu réel bi loolu yépp moom moo koy fay moom mooy sonn ci loolu ñee ñoom nekk fee ci seen ordinateur di fo di gagné seeni million te defuñu dara mérité wuñu rien ñu ngi ci seeni i euh, euh, salon yoo xamante ni climatisé wala seen i salle climatisée seen i bureau climatisé daal di euh, nu mu tuddati euh, développé seeni algorithme yoo xamante ni ci lañ gi nekk ci di di di di léegi kon l'islam dafay tere loolu mooy foog nga jël ba xam ne lii sa alal la yaa ko moom sa moomeel la nga soog a jël jaay loolu moo tax loolu moo ñu indi ci almurabaha surtout almurabaha lil amiri bi shira mooy lii léeg-léeg lu ci bëri léegi banque yi di proposer te du ko tuddee lebalu lislaam mooy da ngay ñëw di wax ne da nga bëgg par exemple euh, oto ñoom dañ naan la demal nga xool benn oto nga waxtaale ba juboo ak borom oto bi mu jox la carte grise oto bi jox la papier yi nga ñëw boo ñëwee wala mu defar la facture boo ñëwee ñoom ñu ñu ñu ñu génne xaalis bi immaa ñu jox la nga jox borom oto bi wala ñu jël xaalis bi jox ko borom oto bi léegi bu oto bi di jar 10 millions ñoom ñu joxee la ko par exemple 12 millions wala 11 millions léegi bu la ko joxee loolu lan mooy am lii am mooy léegi yow da nga da leen di war a fay onze million oto bi dix millions la la ko waa ji jaayee ñoom jàpp nañ ne loolu mu la ci lislaam mooy lu ñu doon wax sànq mooy damay damay yor sama sama place sama magasin nit ñëw ne ma dama soxla woon benn iPhone iPhone 12 ma ne ko non yoruma ko mais boo bëggee mën naa la ko utal mu ne ma utal ma ko ma dem ut iPhone 12 bi jëndee ko xaw ma lu muy jar par exemple 500000 léegi su ma ko jëndee 500000 ñëw ne ko mil laa la koy jaayee. mu jënd ko ci man 600000 wala ma lebal ko ko 600000 leb mën na nekk boor aussi a nekkul ne forcément boor lay doon loolu tamit na leer muraabaxa mën na nekk njaayu teew mi teew liñ ci namm rek mooy 500000 laa jëndee tegal ma ci eh, di 100000 eh, muy 600000 ma jaay la wala ma lebal la. li tax al amiri bi shira mooy parce que danga ñëw soxla matériel bi yoruma ko nga commandé ma ko boo ma ko commandé mënuma la exiger ne la bu ma ko utee da nga koy jënd. ñoom boo ñëwee dañu lay signaloo balaa dara di am dañ lay signaloo alors que waruma la mën a force ne la bu ma ko jëndee danga koy jëndaat ci man loolu wax da la waad bi shira la mooy dafa nekk ne da nga maa dig ne di ko jënd yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu awfu bil uqud naam jullit dafa war respecter ay engagement am mais mën nga am ci diggante bi ngànt nga rétracté wu wax ne man marchandise bi intéressé tuma am nga ci droit mënuma la imposer loolu parce que lépp ci risque commerce lay dugg su ma demee jënd iPhone bi ñëw teg nga dem ba ci biir am ay jafe-jafe ñëw ne ah wax dëgg yàlla sama calcul yi ma defoon kat daf ma faussé mënatuma ko jël aw ma droit di la ci topp loolu moom mooy li ci am. léegi ñoom institution yooyu duñ def loolu loolu benn la ñaareel bi ci des mooy buñ koy jënd duñ ko jënd ci seen tur oto bi dañ la koy jëndal yow. loolu nag xëy na léeg-léeg affaire loi moo ci am parce que ñoom bu ñuy wax dañ naan ñoom ci loi mënuñu jënd ci seen tur di jaayaat parce que ñoom permettre uñ leen ñuy jaay mais lu ci doon tane mooy am xëy na yenn sociétés yu ñuy monter. yenn filiale yoo xam ne dañ koy am teg ko à côté filiale yooyu ku bëgg a def murabaxa foofu ngay dem ñu def fa benn yenn capitaux yi def fa yenn xaalis yi dugal ko fa léegi bu ko defee filiale boobu mooy def lu mel noonu mooy bu nit soxlaa oto moom moo koy jënd ci turam bu ko jëndee ba pare nit ki ñëw mu jël ko ci turam moom lebal ko ko waaye ñoom duñ def loolu léegi li ñuy def mooy day jóge ci ngañ dem ci sàmba voilà kiy leble moom yoonam nekku ci voilà kon jëlul benn risque ci mbir ma daanaka mën nañ wax ne da ko ko fayal da koo joxal xaalis bi mais jënd ko ba noppi lebal ko lislaam li mu bëggoon mooy damay jënd di la xaar nga ñëw diggante bi oto bi mën na yàqu diggante bi lu nekk mën na fi am comme prise de risque am na boo ñëwee set mille sept million la dix millions la man la onze millions naam ndax jël naa sama alal jël risque jënd oto bi mënoon nga dellu ginnaaw ne dootoo ko jël dara mënoon na cee sikk ci diggante bi loolu yëpp jël naa ci risque kon mérité naa un million yi ma ci teg mais li mu dul nangu mooy jël xaalis bi taxaw di xaar waa ji jël oto bi jox la ma jël xaalis bi na ko am loolu ak ne la am xaalis bi fay ko benn la amul benn différence kon lebal la xaalis bi daanaka jox la ko ak jox ko jox jox ko ko benn la parce que bu ma ko joxee tamit joxuma ko sama tur dama la ko koo joxal kon foofu am na benn sew sew bu fi nekk li may faral di wax mooy moo fi tane ci li fi nekk moo tane nga dem ne lebal ma xaalis ñu tegal la ci riba moo tane comme mënoo leen a forcer la mais pour ñoom ñu euh, dëppoo ak ni ko lislaam yoonale quand même euh, ala kulli xaal yow sa warugar def nga ko ci ne ñëw nga ne man oto laa bëgg a leb lebuma xaalis buñ jëlee oto bi même ci sa tur yow fay ko yaw li ngay wax ne moom la may toppee oto la oto laa jële ci ñoom jëlewuma ci ñoom xaalis kon lañ cey teg boobaa bénéfice nga koy considéré kon ci côté boobu moo tane mais doon na dëppoo ak bu lislaam bi dëgg dëgg dëgg bu fekkonte ni ñoom bu ñuy jënd oto bi dañ koy jënd ba noppi soog la koo soog la koo lebal kon foofu tamit sew sew boobu moom moo fa nekk mooy jël soog a joxe beneen bu bu mujj bi nga xamante ne bi moom moo ci topp mooy bul jaay loo xam ne yoruloo ko bul jaay loo xam ne amuloo ko mooy bu fekkee da nga ñëw ne ma dama soxla iPhone bi mënu ma ne la waa indi cinq cent mille fekk na yoruma iPhone wala indi 600000 yoruma iPhone nga jox ma 600000 ma ne la suba nga ñëw fi ma dinaa la ko jox suba nga ñëw imma ma lay wax ay daadaa naan la amaguma ko tooñ naa la lor naa la wala ma jël sa 600000 dem gis bàcc ma la di jaay iPhone ma jël 500000 jox ko mu jox ma iPhone bi ma ñëw teg di la xaar boo ñëwee ma jël ko jox la sa xaalis laa laa liggéeyee sa xaalis laa commercé dugaluma sama xaalis kon prise de risque amatul 600000 yi nga ma jox 100000 yi laa jël def sam jël 500000 yi dem jëndee ko iPhone. ñëw tegal la ko nga ñëw jël sa sa sa iPhone kon awma droit jaay la ko fekk na yoruma ko voilà li ma li ma la war a wax mooy demal ba suba boo ñëwee incha allah dinaa ko am boo ñëwee ma jaay la kon bul jaay loo yorul loolu yëpp nga gis islam ni ko organisé ci buñ ko wàccee ci réalité bi ak mbir mi ñuy ñuy laajte di faral di laajte nii ci wàllu njëndum pétrole. ala kulli xaal neexut a àtte trop ndax laaj yi ñu ciy laaj ak façon bi ñu koy laajee am na uti tuuti mais li liñ ciy wax ci bu fekkee jàngan nga ko mooy xel mën na cee teey ndax àdduna bi dafay amul fenn foo xam ne tey ci ni ni ñu tëddee mën nañ la laaj xaalis nga ñëw joxe ko rek ñu wax ne la chaque fin du mois wala chaque nangam dinañ la verser yenn montant yi ci façon bu yombee noonu bu doon loolu yombee na noonu kon milliardaires yi seen alal foofu lañ koy dugal balaa ñuy def un an seen alal doublé wu am na ñu fi yor ay milliards fu ñu ko dugal pour yaxanal ko la ñuy xool ñiy investir ci bourse yeeg yooyu yëpp dañuy jël ay risques di moytandiku di dugal di def ndànk di dugal fii di génne fii waaye foo xam ne dañ dafay garantiral ne la fii moom saa boo dugalee chaque nangam ñu ñu verser la nangam nga dem jaaxaan sa kër xaalis bi di dikk ñu la koy jox noonu comme ça ci loo xam ne liggéeyuloo ci defuloo ci dara lu jara tey la lu jara def ndànk la. benn ñaareel bi ci des mooy ñëw bi ñëw suñ dëkk yi nga xam ne ay dëkk yu pauvre la dëkk yu néew doole la ñëw cible ñu ñëw fekk ñi nga xam ne ay daan gi doole yoo xamante ni amuñu trop doole ñii di góorgóorlu ci seen commerce ñii di góorgóorlu ci àll bi nekk ay immigré ñi di lu fi nekk ci am seen salaire te ci dundal seen njaboot ñu ñëw ci ñooñu nga xam ne yoruñu yenn benn pouvoir d'achat bi yoruñu yenn capitaux yi ñu ñëw ciblé leen di leen laaj ay cent mille ak i deux cent mille lu jara a la lu jar a lu jar a xool la xaalis boobu ñuy jël fan lañ koy def est-ce que du li ñi di cotiser la ñuy jël di ko séddale waat di jël di leen ko séddale ko séddale ba dem ba adhérents yi bëri ba ñu amassé ay milliards ñu jël ko dem seen yoon lu jar tey lu jar a def ndànk la ndax dëgg-dëgg réellement am na investissement ak liggéey bu nekk ci ginnaaw boo xam ne mooy jur bénéfice yooyu di jër di jur dividende yooyu nga xam ne moom la jël di ko séddalewaat nit ñi loolu moo jare njëkk a contrôler bu buñ ko contrôler tamit leen la ci nekk mooy fixé bi ñuy fixé ci ne boo joxee nangam ñu lay jox nangam riba la gën a jege que bénéfice su investissement bénéfice su investissement du lu ñu lay garantiral bénéfice su investissement du lu ñu lay fixeel ci ay somme dafay nekk lu delluwaat rek ci li nga gañe li ñu gañe ci bénéfice nu mu toll kenn munta assurel nit ne ko boo ma joxee xaalis ma dugal ko ci marché yi dugal ko ci bourse yi ala kulli xaal chaque fois mën naa gañe loo xam ne di nga ci dinaa la ci mën a jox nangam ñoom mënuñu garanti loolu ndax affaire yi dafay yéeg di wàcc da ngay gañe di perte voilà loolu moo tax kon bu ci garanti bu mel noonu amee ci la xel war a gën a teey voilà léegi nag bu fekkee ñëw nañ suñu dëkk yi nga xam ne nit ñi yu bari ci yooyu gëstuwuñ ko trop jànguñu ko euh, te itam léeg-léeg yombaay bi ak neexaay bi daf ci tànte ñu bari mën nañ cee laxasu dem ba ci biir après mbetteel lu bari am ci moo tax lu jara tey la lu jara def ndànk la ala kulli xaal du ma tëb tëb ne wóorul à cent pour cent mais li may wax daal mooy dalul xel ba à quatre-vingt pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent dalul xel voilà mu des nag xëy na loolu ñi ko war a gëstu dëgg dëgg dëgg liñ bat ko xool ba xam foofu nit ñi dugal seen xaalis ndax lu leer la wala lu leerul la mooy autorités yi nga xam ne yor nañ euh, jumtuwaay yu ko mën donte léeg-léeg du yomb ndax yu ci bëri des fois doo xam sax fan lañ basé wu ndax li ci ëpp ay internet lay doon euh, doo xam fan lañ basé wu fan lañ nekk réellement bis boo jékki-jékki woon affaire bi tëj ñu tëj serveur ya tëj site ya nga xam ne ñoo ko doon def pour nga xam ñi ko yoroon dëgg-dëgg di ko def fan lañ nekk dina jafe trop voilà léegi nag ala kulli xaal tey gën a xool gën a jàngataat mbir mi mais investissement du investissement wu l'islam moom du faral di tëddee noonu genre xeeti garantie yu mel noonu bu ci amee rek li ci ëpp riba lay doon mooy dangaa lebal nit ki xaalis mu tegal la ci lenn ci loolu ngoo ko lebal di la ko jox waaye bu dee investissement la moom liñ lay jox mooy lu ñu gañe ci bénéfice kon na nekk liggéey boo xam ne bu wér la na nekk commerce boo xam ne bu wér la loo xam ne vérifié nañ ko ba xam ne ci loolu la xaalis bi di dem pas mu nekk lu ñuy mbubboo rek ñaareel bi beneen bi ci des tamit mooy la ñuy gañe nekkul lu luñ mën a garanti bu amee xayrun bu amul ñu xam ne commerce noonu la tëddee beneen bi ci des mooy bu ñu gañee itam li séddoo mooy xam ne yaa jël 60 pour ma jël 40 ma jël 50 nga jël 50 ci noonu daal lay tëddee kon tey suñu jotaay tey bi loolu lañ ko jagleel muy wax ci masala boobu ndax question yi nga xamante ni moom moo ciy faral di ñëw yàlla nañ suñu borom subhaanahu wa taala sàmm te taxawuñu bu baax hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله مبني على قواعد خمس هي الأمور وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرا ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة